sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen safoo di ñu seetaan fii ci Equivox TV mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen amati mbégte nag jàkkaarloo ak yéen xam naa ne namoon ngeen ma waaye man itam namoon naa leen trop trop ndax presque une semaine a ngi nii gisewuma ak yéen waaye nii lay demee nag à chaque fois ci euh, revue de la l'arène lépp loo xam ne rek xew na ci arène bi dinañ toog fii daal di ko waxtaanee mais à chaque fois rek mu ngi ànd ak ki nga xam maa ngi lay ziar daal man xaw ma looy reetal. xam nga ñun ñu ngi doog a gisee. waaw gëj nañu <laughs> gisee waaw dañoo gëj gisee. dem nga fi gay jaay defar loo xam ne daf ma fee wutu. comme nag <laughs> non lu neex. maa ko gis ni nga leeree nii. waaw commencé yaat biir looloo ma ci jaaxal. li ma filtre xam nga kon nag man damaa gàtt sama biir dafa gaaw a génn li ma filtre ah, ah, waaw wax ko boobu c'est eh. xam ko da kay koy wax ñu lay seetaan pour aram sama jamaa noir bi li mu doon laam-laamee di ko rumandaat ci suuf aram Ndiaye sama séeri waaw eh. waaw loolu day waaw non ah, bu dee aram bi ngay wax jamaa noir benn la benn la caaw boobu de moom lañ ma may wax dëgg yàlla macha allah trois bi passé trois juin aram Ndiaye fekk ma fi woon waaw fekku la fi yaa nga woon gay nga kontaan léegi Babacar day xëy si di di belli di reetaan loo wax neex deret ba de. non man dama mas a neex deret mais xëy na daa yokk ñaareel na non ñaareel yéex koo def lay rek <laughs> a ngi dégg raw na leen waaw yéex koo def bi daal lay rëcc moom soo bëggee dégg dëgg ah. waaye jàmm kese ci ne ëpp na waaye tamit kenn du suñu aaw buuru këram wala kooku mooy lépp wala buux kooku mooy ndey kooku amul morom mooy lañ koy woowee booy tanek mooy yaay mooy mooy lépp moom <laughs> mi noonu voilà kon ñu dem seetaan li nga xam ne nag moo di revue bi daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 15 juin 2021 dañu ñëw ak yéen ci likkaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag fa mu xëy tey ñëw maanaam ci ki nga xam ne ni daal nekkoon na fi mbër ñu naan ko duubalees moom duubalees nag yëglikaay bi moo xëy tey ñëw ci moom moom duubalees nag maanaam yëglikaay bi nee na daal ay weer a ngi mu tëdd feebar yëglikaay bi di sunu làmb nag moo xëy di wax de du samay wax nee na feebar na feebar boo xam ne daal fi mu nekk nii moom metti na ba yegg ci lool nee sax boo bëggee dégg-dëgg moom maanaam fi mu nekk nii wax pour mu def ko lu xaw a jafe la ci moom fi mu nekk nii maanaam daal moom boo bëggee dégg-dëgg kon barab na ba yegg ci latikaaf sunu làmba xëy tey dinu wax lu mel ni ki noonu doom ju jigéen nag ca ma Massar daal daa mel ni mu nga ca topp tooga bu baax a baax waaye loo ci mën a dégg daal yëg likaay bi nee na moom feebar moom def na ko moom duubalees bàyyi wàlla kay numéro ak Sa Thiès yëg likaay baa dikk ci lu mel ni ki noonu leneen loo xam nar a am te nar a tar samedi bii nu jëm ci arène nationale le 19 juin mu war a dox ci diggante Franc ak Tyson 2 yëglikaay bi nee na le démo le démolissateur défier la boxeur maanaam Franc moom lu mu dajeel da koy démolissé daal mépp yóbbu sànne waaye ka muy dajeel nag ab xeexkat la boo xam ne daal bu doy doy waar la te itam noonu la mën a bëre muy Tyson 2 sunu làmb moo xëy tey ji nu jëm lay am ci arène nationale ak Vox Arena leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Amadou Kati Diop ak itam ab xam-xamam ci wàllum coaching maanaam nu ñuy tàggate mbër ba nga xam ne nii daal dana nekk champion bu mag a mag moo tax yëglikaay bi daal xëy tey dikkal ñu ci Amadou Kati tudde ko le Messi de Fass Ndakaaru ci wàllum ne mbër ak jox ko xam-xam ka nga xam ne nag moom ab xam-xamam bëgg na koo yokk ba yegg ci lool muy booy Niang numéro de tey itam bëgg nàmm aw yaramam moo xam xeex ba la wala bëre ba nag mbër ya boo leen gisaan ñuy préparé ji fu lay wax États-Unis France Boy Niang nag yëg yëglikaay bi ne nañu daal bàyyi na fa réew yooyu yëpp fa mu tànn daal mooy Siin Siin daal la takki fa kon daal la fas yéene mooy diggante ak tafaatin fasu ci yéene maye dara dara dara maanaam daal da koo nar a taral ba mu tar sunu làmb xëy war ñu ko mu ànd ak kanji ma nga xam ne mooy ansaam jëm fa nga xam ne moo di ci réewam siin ngir nag préparé ji tafaatin ak yeneen bés yi nga xam ne nu nga koy xaar moom Tafatine mooma nag nga xam ne moom la booy ñang di pareel moom nag seen jàkkaarloo ba nga xam ne moo yàq woon ba tey mu nga cay wax que mu xëy di waxal nag ne nag Pape Colis Faye daal Tafatine ne na ko lu jiin njaaka yaay njaak yow lu fa xew kere rek bu dee xeex dafaa am ñu toj fa ay oto mbaa ñu xaañ fa nit dafa di ne na ko yow calees du kenn ku dul yow ndax nag yaa organiser say mbir woo ay nit te la nga war a def muy sécurité nga xam ne mooy jiitu di mujj defoo ci dara kon lu fa xew bu ko jiiñ kenn yow kay jiiñ ko sa bopp wala nga xoolaat sa bopp tafaati na ko wax du sama ay wax kenn koo xam ne nii moom organiser nañ ko ba mu am ndam donte ndam la bari na coow lool muy leket bu baara kera samedi fa nga xam ne boog wala boog dimanche ji nu génn fa nga xam ne moo doon ca stade ba nga xam ne moo nekk fa nga xam ne moo doon ca Banjul wala ca Bakaaw mu nekk stade boo xam ne bu rëy rëy la waaye loo ci mën a dégg Jamaïcain daal moo fa dem tëgg fa France ak leket combat bu bari yëglikaay bi ne na quarante mille spectateurs ñu nga fa woon toog di seetaan waaye combat ba fa mujjee kii nga xam ne moo di Leket bu baara moom moo daan France ma nga xam ne moo dëkk ca Banjul waaye combat ba nag yëglikaay bi ne na coow la moom loo ci mën a dégg bëri na ca ba yegg ca lool moom yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu waaye lu mën a xew daal ka nga xam ne nii moom moom moo di Leket yóbbu na ndam la fa nga xam ne moo di ca baara ñeneen ñoo xam ne wala keneen koo xam ne moom itam yóbbu na ndamam muy bulldozer mi ngeen xam te ki nga xam ne moom moo doon ki nga xam ne nii moom moo di Jibi Njaay tëggoon ko dimanche ji génn ca Iba maar Diop diggante ma gin bu yoof moom bulldozer daal la mu won ka nga xam ne moo di gin ginnaaw bam ko daane ba pare foo mu xëy ñëw taxaw fa fenn la nee na gin ginnaaw ba mu jógee ci moom ñu ne ko loo bëgg bulldozer bu Kër Massar ne na Diène kayre daal doomi bay Kairé moom la teg ay bët fi mu nekk nii bëreeg moom daal ne na moo ko xañ jàmm ne lu mën a xew daal Diène Kairé na ñëw nag nu bëre ndax nag il est temps jot na ñi nga xam ne il est temps ba mu jot ba nu génn mooy les arènes les arènes nag yëglikaay bu bees teq la bu ñuy door a dajji ci paquet génne ko yëglikaay la boo xam ne lu doy waar la ñuy bind ci làmb tey seen xët bu njëkk fañ ca ñëw dañoo delluwaat ginnaaw tuuti dig ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo combat boo xam ne yëglikaay ba di les arènes neen la mu dugal ci wàllum xaalis ca gise ya boo ko dee compter toll na ci cent soixante dix millions maanaam téeméeri millions ak juróom dugal na ko nii mook Modou Lo moom ñoo war a bëri les arènes ne muy Ama Baldé Ama nag moom mu ngay waajal boppam de ngir fas yéenee génn maanaam préparé bi waaye yemu ca de yëglikaay bi ne Ama daal ignoré Modou Lo lay def fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg yëglikaay ba moom les arènes moo xëy wax ko yëglikaay ba tamit yemu ca xëy na dalal koo xam ne tamit ku réy la si làmb muy Pape Abdou Fall jiite les promoteurs mu mel ni ki nag Pape Abdou Mool démission bañ doon wax di ko lawte lawte ci réew mi naan daa démissionné ak démissionné wul mu Aïssatou fay waxtaan wu yaatoo yaatu ci journal bi nga xam ne mooy les arènes Pape Abdou nee na démissionné wu ma tey suba wax yi noppi yëglikaay bi ñëw na tey ci ñëw maanaam daal muy xam ne daal post ba daal mu nga ca ba tey maanaam moom Pape Abdou Fall boo bëggee dégg dëgg moom leeral na lool ci yëglikaay ba nga xam ne moo di les arènes seq ak waxtaan nag Aïssatou fay madame Niang yëglikaay bi xëy na tey daal Pa Abdou Fall mu waxtaan fa leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci wala meneen mbër muy Aline Seyde boo xam ne yëglikaay bi ne daal talent la boo xam ne bu doye doy waar la waaye talent la boo xam ne daal maanaam ay mbiram doxul yëglikaay bi ñëw na ci palmarèsam ak douze victoire ya nga xam ne dajale na ko ak six défaites ya nga xam ne am na ko moom Aline Seyde yëglikaay bi di les arènes moo xëy tey ñëw ci moom keneen koo xam ne ñëw na ci moom muy koo xam ne tamit def na loo xam ne bari na mbër yu ko deful ci débuté carrière am muy Malick Niang ak loo xam ne moom Malick Niang ba mu commencé daal di combat la doxal yoo xam ne lépp ay ndam la waaye ba mu daanoo ba tey kenn gisatu ko keneen koo xam ne nii moom mu ngay jéem di doxal muy Boubacar Niang borom Ama Events Boubacar moom la mu xëy taxawal ab ramas la war a dox ci diggante wulli wulli waat mi ngeen xam ak big bato police mbër ma yëglikaay ba nag mu ngi nuy ne daal drapeau ba kañ ko duppee du kenn ko dul l'international les arènes moo xëy tey diñu wax lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom maanaam la ñu def wala boog boo fa demee la nga fay fekk mooy la nga xam ne moo xewoon ca ba Banjul maanaam diggante ba kaaw baara ba Banjul loolu Equivox su koy fekk mel ni ki daal maanaam la fa xewoon ca lamb yëpp di ngeen ko fa mën a seetaane yëglikaay ba moom moo ñu xëy wan ñu lu mel ni ki noonu waaye duñ ca yem de maanaam àllarba ba nga xam ne nii ca la ñu maanaam àllarbaay suba ji bu dellu daal bu bëggee dégg-dégg muy tombeeg la 23 fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop Fallou Ndiaye moo fa woote ab face à face bu war a rëy bu war a dox ci diggante Tapha Mbeur ak ka nga xam ne moo di Ada Fass waaye Sidi Diakhaté tamit la mu def lenn la dafa dem fa nga xam ne moo di ca Kaffrine fekk fa Ablaye Sow daal duppee ko ab drapeau boo xam ne bu rëy rëy lay doon maanaam bu nu tabaskee ba pare moom si di Diakhaté daal la mu taxawal nag moom moo di ki nga xam ne moo di brise de mer bu Ndakaaru ak bu Saloum mel ni ki daal moom si Sidi Diakhaté promoteur yu Thiès ba loolu la def yëglikaay yedd loola lépp mu nga fa nga xam ne moo di ca Equivox mel ni kon daal lamb ji fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dëgg jax na ba yegg ci lool waaye bu ngeen dee tamit de ngeen xaar bi ba production structure bu bees la boo xam ne mu ngi ñëw ak doole te bu yegsee lii ma leen wax xëtam mu njëkk ku mu dal bu keroogee yaakaar naa nàcc dana ko def wala sa gannaaw dana fut ndax nag ay xale lañ yoo xam ne nii maanaam la ñuy waajal rëy na de Biba Production fa nuy commencé nag moo di ca ñooro ñooro ga ngeen xam ca Saalum kon nuyu naa waa ñooro yëpp yëpp yëpp kane ca bopp ba nag moom mooy Habib Séeri Awa Sow du mën a ñàkk Sow pour la arde borom nag ak meew am na solo kooku Biba Production Chéri Awa soow suñ suñ suñ tukkuleer bi. awa sow <laughs> ah, mi noonu ñu daal di ñëw nag ci journal suñu lamb euh, la ma xëyatee rek ca xëtam bu njëkk Babacar moo di ki nga xam ne moo di Double Less nekk bàyyi ci Balla Gaye 2 moom nag fi mu nekk nii dafa dafa feebar torop ba fi mu nekk nii sax wax da koy da koy jafe mi ngi actuellement fële ca Kër Massar benn doomam bu jigéen di ko taxaw. waaw loolu day li ñu ci mën a wax daal mooy ñaan yàlla. Mhm. ah yàlla na ko yàlla yëkkati. Mhm. parce que moom. yaakaar naa ne ku ne xam na lu mu def ci Sénégal. Mhm. yaa ngi dégg def ko tamit ci sport bi ñuy wax làmb. Mhm. ba yàlla dogal tey yàlla may ko ci njaboot goo xam ne tamit ku ne gis na ni ci taxaw muy Balla Gaye 2 ak Sa Thiès. Mhm. Ah, kon defe naa ne bu wéradee ba mu toll foofu comme ni ko yëglikaay bi xëy na indil ñu ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati mhm. mu yëkkati bépp mbindaafoon bu feebar mhm. àddina nag noonu lay tëdd mhm. ah wér ak wér ñoo ànd li ñuy ñaan yàlla rek yàlla na si génn ak jàmm rek ba jël si waat si sagoom nekkaat ak njabootam fan yi gën a gudd parce que tamit mag la moo xam ne vraiment ah, kilifa la te itam macha allah daal ñu ko ñaan daal wér di ko ñaan bépp mbindaafoon bu am jafe-jafe wala nga na solo bu ñu ñoo jógee foofu nag le 19 juin incha allah mu am nag euh, benn choc bu mag a mag a mag ci saison bi. mu diggante Franc ak ki nga xam ne mooy Tyson. waaw parce que noonu ko suñu làmb waxee. ah boo mhm. bëggee dëgg dëgg moom maanaam euh, soog maanaam combat yi gën a rëy. Mhm. ren ci saison bi. ah bii da cee bokk muy Tyson 2 ak Franc. moo tax mhm. yëglekaay bi ne seconde seconde so. parce xam naa bi lag ak Modou Modou Ama passé. bi lag ak euh, Eumeu passé moo tax mu ñëwaat. effectivement parce Franc Tyson 2 bu ñu mooy bëree. maanaam ku xam làmb dana la xam ne loolu combat bu rëy la te événement la ba ba pare ñu def ko drapeau docteur Macoumba Diouf kooku tamit di meeru Lat Mingué <laughs> muy bés boo xam ne daal li ma lay wax mooy insha allahu rabbi ah Franc pare na lool Tyson 2 itam gis naa ko sànq jëli mhm. naa ko bu yàggul pare na lool mhm. mu mel ni kon fi mu nekk nii li ñuy xaar rek yàlla nañu yàlla may fan bu gudd ak mhm. bés ba kenn bañ a àdduna suuf la génn seen diggante. su ko rogee wallaay da gis bëre da gis xeex. man maa la wax lii. am na solo bu ñu foofu nag ki nga xam ne moo di Boy Niang Boy Niang 2. Mhm. Boy Niang 2. waaw moom daal mu ci ay waajal yu métti métti pour démolir ki nga xam ne moo di Tapha Tine noonu la ko euh, journal bi bindee tey. waaw moom dafa mu waaja ji sax moom man dama naan dégg mbëri ñu naan leen ñi nga États-Unis ñi nga mhm. France. Mhm. wala Espagne ak yooyu ay Boy Niang. moom ci ni ñu si Siin la dem. fa la jëm. waaw kon moo Boy Niang daa mel ni. ah comme li may wax rek ay dóore xam nga moom ko booy nag mooy mbër mbër la bi nga xam ne daal xale la macha allah mais am na encadrement mhm. te itam xam na li mu bëgg ah yaakaar naa ne ku am adversaire bu toll ni Tapha te nga war a boo ci jógee dem si jëm si Balla Gaye kon defe naa ne mhm. loo waajal doyu defe naa xam na ko te defe naa agent euh, Tapha Kandji wax na ma ko ci micro Equivox nee na ma di nga dégg mbër ne la combat bi ma daan bëri ak bii ñoo yem waaye nee na moom jàpp na ne seen combat bi yemut ak li daan bëri mhm, effectivement dëgg la parce que fi ñu war a jéggi jàll ak fi ñu jëm leen di xaar moo tax mhm. kon loolu defe naa daal mbër moom boo amee bés préparer rek moo la war pour moo war pour bu addu soufflé ami nga mën a pare dëgg la waaw pare da caa baax boo parewul du moo tax yow pare macha allah fi mu nekk nii raw nga gaa yi dëgg dëgg ma yaa macha allah rek moo tax macha allah ah. waaw man daal bëgg naa pare. bëgg nga pare naa bëgg daal pare te maa ngi ñaan yàlla pare. da pare sax nag macha allah. pare ci lépp lu baax. oui <laughs> noonu. voilà. foofu ñu dem seet ki nga xam ne moo di Kati Diop ñu duppee ko nag le Messi de Fass Ndakaaru maanaam ci li xam ne moom la nekk rek muy coach. waaw moom loolu moom defe ne wàllum coach moom. am na ci xam-xam mhm. Amadou Kati Diop mhm. defe naa ne ku ne gis na ne écurie Ndakaaru moo ko sañ te bi mu ko sañcee toll na ay temps xam ne écurie Ndakaaru da ay champion yu bëri waxuma sax Yékini mhm. mais gis ñoom Mamadi gis taxafurla Mbagnick ñoom Youssou Ndour ñoom dem si yàlla Seexu Jéen ak yeneen i mbër yoo xam ne ñoom jama mhm. ñoo ñëpp nekku nekk ni Dakar jamono jooju écurie bi dajale ay champion yu mag a mag a mag a mag mhm. ñii ci ràññee ci lit simple bi ñii ci lit ak bi mhm. yëkki ni féete fële te loolu lépp ci loxo Amadou Kati Diop la nekkoon mu seq ko encadrement. Mhm. kon defe naa bu ñu ko tuddee leen Messi de Fass Ndakaaru tey mooy réécurie Fass Ndakaaru defe naa itam wax dëgg yàlla. Mhm. taggaluñ ko jotewuñ ko ay fële ah maanaam dafa am xam-xam. ci mhm. wàllum nu ñuy yore mbër. waaw def ko champion loolu moom am na ci xam-xam. Mhm, te wane na ko tamit macha allah. Mhm, mhm. ki nga xam ne moo di euh, Leket Baara s'offre euh, France dans la polémique affaire dafa amul polémique. Mm, waaw am na ay wax de parce que am na am na ñoo xam ne jàpp nañ ne carte appui amul. parce que keroog ay mer sax am na fa ba ay sànneex saison yooyu am fa. mais ñun li ñu ci amal solo rek. du loolu parce que arbitre ñoom ñoo arbitré. Mhm. ñoom ñoo gis ne quatre appuis am na ñoom ñoo joxe victoire loolu nag mbër ma des la ak la ko ca yoon may. comme bu doon mhm. tey Sénégal la dama naan la moom mooy dugal recours rek laa mi nekk moom daanuñu ko deful quatre appuis. Mhm. loolu moom leneen la loolu du domaine. mais li ñuy li man moom li may magnifier di ko rafetlu mooy. le fait que un jeune comme Jamaïcain. di suma rakk di ma di suma xarit. tey bu ñuy bu ñuy ah jël Sénégal ak ga Gambie lëkkale leen mhm. ci loo xam ne nii ah lu doy doy war la stade boo xam ne quarante mille spectateurs mhm. fees dell bay tuuru nit ñëpp ñëw ay ministre déplacé wu génn ministre de sport baak yeneen autorités yi gambien yi génn ñëw assisté bés boobu ah kon Jamaïcain man bés boobu man bu ma amee ku ci gagné pour man man Babacar dama naan Jamaïcain ci mhm. gañe te Jamaïcain ndamal Jamaïcain ndamal Babacar parce que dañoo yàgg mhm. moo tax lu mu nekk dama ko ciy fekk nag mhm. loolu moom dawuma ci saala yaay dal comme ni ko gars yi di waxee di ko ñaanal yàlla rek lu mu dëgmal rek yàlla na ko daan moom Jamaïcain parce que itam su ma rakk la su ma la te daa yàgg loolu di nuyu tamit le peuple gambien waaw waa Gambia ñu ngi leen a mhm. nuyu. Mhm. <laughs> dañu leen a gunga bu ñu foofu rek ñu jàll ci ki nga xam ne moo di tafaatin ci face à face nga xam ne nag programmé woon nañ ko mu avorté ba tey rek mu ngi ca yeblaami ki nga xam ne moo di waaw loolu day amoon na fi weekend bu li passé bon bu mu amoon ay agression ay xeex ay jël moto jàmbur mhm. euh, ba tey moom muy balaame Thialis waaw lu mënta xew daal euh, loo ci mën a dégg moom promoteur bi man xaw ma balaa mi xaw ma ñaax a balaa mi waaye xam naa yow muy organiser daal woo ay nit ci benn lieu public. Mhm. wala foo xam ne lieu tagal na ak razzia xam nga boo tegee ak razzia si mbedd ça dire que public bi day ñëw bu public bu waree ñëw nag yow mi organiser kon la war mooy rek ca début ba nga wut sa sécurité rek mhm. waaye nag olof na mu ndox tuura an bàqa fa def ñu ne dére dañuy rootiwaat li am am na ba pare passé nañ ko nañ ci jàngate calis na si jàngate mhm. ñoom ñaari mbër ñu jàngate si pour prochaine seen sortie yu ñu jëm ñu fexe ba lu mel ni du ci am mhm. parce que loolu nekkul luy sagal làmb baaxul si làmb baaxul si fenn sax violence moom amul amul fenn fu mu baax waaw violence moom bu bëggee dëgg-dëgg fépp lañ ko dàq waaw am na solo yooyu les information suñu làmb ñoo ko fësaloon bu jàllee foofu nag moo mel ni dafa dañoo am gan euh, journal bi ñu ngi ko duppee les arènes mu may fàttali tam tam des arènes xam nga récitation boobu <laughs> ah, waaw des arènes xam ba xam nekkoon di Dakar. Ah. <laughs> boo bëggee ma yóbbu la fa. <laughs> mais journal bi les arènes lañ ko duppee mu ñëw nag ci euh, ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 rentrée d'argent au niveau des guichets maanaam ci guichet yi Balla Gaye 2 généré na euh, lu tolloog 170 millions contre Modou Lo. waaw loolu day lu doy waar la xaalis bu bëri lay bëri moom mhm. mais bon balaa ma ci dugg si loolu damay wax ak ni waa les arènes <laughs> ñu dal ak jàmm amiin ñu ma fa gis mhm. suma mag suma xarit koo xam ne dañuy waxtaan lu bëri muy Abou Ndour mhm. di ko am jam du doomu séréer di ñaan yàlla li nga xam ne da ci dugg parce que moom lañ gis si bopp bi ah, yàlla na ci am réussite parce que wax dëgg yàlla balaa mu dee am wax na ma ko te loolu defe naa relation booy am ak nit ay taxaw. moo am mhm. lii balaa mu génn ren di ko gis. abu taxaw naa ak man waxtaan ci ak man. Mhm, ma ne loolu yàlla nañ ci am ndam. Mhm. yaa ngi dégg ak ñi la siy jàppale ñëpp. di ci kontaan ci loolu trop que li tamit mooy ah. sax dañ koy wax. nañu dese yi dégg ñaanuñu yàlla continuer rek nekk ci déedéet <laughs> am na solo ku nekk ñaan na yàlla amal boppam dara parce que du du mën a ñàkk loolay àddina waaye tamit fii la yàlla to tollale bi nga fiy toll nga koy nangu parce que nangu day jël cëru bañ mhm. si yaay déglu ma kon Abou Ndour mention spéciale waaye tamit Aïssa Faye suma rak suma xarit suma jigéen madame ñaa moom tam gis naa ko fa mhm. mu fay bind muy nekk koo xam ne ku ñaw xalima ci wàllum bind mhm. Aïssatou Faye ndax bokk nañu liggéey Leewtoo nekkoon na sunu làmb di journaliste maa ngi koy maa maa ngi ñaan daal les arènes mu dem ba yegg tey fi sunu làmb yegg ndax sunu làmb yàgg na fi bopp ba tey. 2005 mhm. ba tey. Mhm. te defe naa ak ni ma gisee ñu ñëwee. buñ mhm. góorgóorlu nañ dem. am na solo Balla Gaye 2 nag génère wala léegi gisee génère 170 millions. loolu moom defe naa ne bon c'est normal parce que defe naa combat Balla Gaye 2 Modou Lô war na waaw war na sa romb foofu ah. waaw vraiment. parce que ñaari mbir yooyu ah. non lu ñooñu bés boobu. weesu <laughs> na rëy ñooñu moom seeni mbir dara da cee ndaw ci lam ñu bàll muy mhm. la waaw ñoo ñooy mhm. da cay boole moom du noppi. mu ngi noonu maa la ko wax <laughs> waaye kenn du Moodu du waaw Moodu Moodu sedd daray la. <laughs> mi ngi noonu bu ñu la waxee lam lay wax. Mhm. mi ngi noonu jógee foofu nag euh, Euh, ba tey dañu desandi ci ki nga xam ne moo di Modou Lo sorti au vitrole des rois des arènes mu mel nii rek digganteem ak Ama Baldé day ignoré euh, ki nga xam ne moo di Ama daal. Modou ignoré Ama Ama mooy ignoré. Ama ignoré royalement Modou Lo. ci wàllum royal bi mhm. di ko koo jéem a. Mhm. kii ak mhm. ba daal fi mu nekk nii. dafa mat parce que boo ko daan safu ko daal mbir mi safu ko léegi nag le xam nga problème bi amee <laughs> safu ba ngeen lekk ay avance mbir ma day daal di jeex léegi xam nga lu koy leeral <laughs> yàlla nañ fi yàlla bàyyi amiin ba le 25 décembre tàkkusaan nga <laughs> incha allah ndax ñàkk saf googa Ama mm-hmm. da koy dëggal ci géew bi nangu ko ci moom mm-hmm. wala mudu da koy bañ mm-hmm. dëggal ko moom loolu mhm. bés ba la ñuy xaar. dëgg la yal nañ mhm. ci yàlla yóbbu ak jàmm bu fekkee tetal ko bu ñu jógee foofu ki nga xam ne moo di Pape euh, Abdou Fall euh, sur sa démission supposée mooy démission bi nga xam ne ñu ngi koy lam-laamee moom nee na daal ba tey quitté wul euh, postam bi nga xam ne moo di président des promoteurs waaw Pape Abdou Fall defe naa mhm. loolu ñu ngi ko fi doon wax mais ba tey dégguñu ci làmmeñam mu ne demande démissionné wala bàyyi na te Pape Abdou moom xam naa ne xam bu démissionné woon mooy génnal boppam taxaw ne démissionné na wax dëgg yàlla déggaguñ ko kon bu ko Aïssa Faye dalalee mu wax ne ba tey demi waxul kenn démissionné wala démissionné na cest dire que kon la mu nekkoon mu nga ca ba tey mhm. te defe ay nit la jiite muy kuréelu promoteur kon defe naa itam mu nekk exemple si promoteur yi Pa Abdou parce que xam na ne ba mu ñëwee ci làmb ba tey mu ngi ciy def li mu man di jàppale làmb si coté bu ne mhm. si ta Papa Sow moo ko tëgg kon defe naa rek nañu ànd liggéey rek mhm. moo gën waaw am na solo am na solo Ami Diouf mhm. bu ñu jógee foofu nag euh, j'adore la marque de référence foo dem fekk ko fa mi ngi nii ci arène bi mi ngi fii <laughs> waaw j'adore de j'adore moom fi nii loo bëgg mu niin wala loo bëgg boo bëggee lekk suur <laughs> ah? uh-huh. moom da ngay am jamaa noir bu mu la ci toggaléegum bu mag bi non jamaa noir yëpp yëpp la laal na lépp de ah boroom kër gaa ko joxal boppam yëpp maa la wax li itam mi ngi noonu bu ñu jógee foofu nag euh, lan moo xewoon fee Gambia waaw foofu day la fa xewoon neex la fa xewoon nag xam naa xulle mais sax gi est am na moment boo xam ne est ce que tal na statut ah. ci gaal gi ami kër lañ ñu sóob ci gaal <laughs> déedéet kay sóob ñu ci ndox wallaay avant nga dem déggoon naa nga naan boo duggee ci ndox da ngay miir Babacar non man sax xam nga bu dee bu dee féeri bi la amul problème ah. waaye gaal laa la wax de ak supporters yi ñu boole ñu ci biir gaal image yooyu di ngeen ko gis non image affaire bu doy waar. ndaw lu yëngu. ñu ne bu ñu waxee ñu ne garaaw yéeg leen. xam naa gaal bi de la retour ba guddi gaa gën a garaaw 23h00. mun na ci biir ndox mi. ma ne ñun de yàlla des ci suñu ak ah, ñi ñu àndal ñoom bu gaal ga dëpp ñoom mën nañoo fii waaye man maa xulle kelaas man a bawol bawol laa ah, ñii ay saalum saalum ñii waa saalum sax ñooñu tane ci géej ndax ñun bawol moom yoruñu géej ñun ak joor la ñu yor waaye yow déggoo li ma la wax waaye loo ci mën a dégg itam <laughs> ah ñoom daal xam lañ ñu xaw a waxoon ca gaal ga am na ñeneen ñoom loolu loolu du problème ah, gaal du problème kon kon kon xel daloon na <laughs> maanaam ah. ñuy nuyu waa Banjul yëpp mm-hmm. euh, ah di ci nuyu la sport la mm-hmm. noonu lay tëddee di féliciter France euh, gi nga xam ne mooy leket mm-hmm. ak waa ba baara yëpp di ko nuyu moom tamit parce tamit dama koy wax kere bi ma jógee fii bi ñu jógee fii départ wuti ya bi ñëwee ba ba ba baara pour war a jël bac bi ay 23 heures. Mhm. dañuy ñëw gaara suñu oto di gaareef bac bi dem bàyyi ñu fa. Mhm. yaa ngi dégg ba euh, leket bi mu ko yëgee ci guddi gi moom moo def intervention te war a bëri ji suba. Mhm. woo ñuy ñëw këram. wax dëgg yàlla mu jox ñu foo xam ne nii. macha allah wallahi la si manqué fa dara. mu toppatoo ñu. boole ñoo soxnaam ak ay yeneen soxna ñu toppatoo mhm. ñu de A à ci côté bépp mhm. manqué wuñ fa dara ci wàllum lekk ak tëdduwaay ak nelaw mhm. kon Leket tamit ñu ngi koy jaajëfal ci loolu mu def mook ay mbokkama ah. loolu moom moo ñu ko defal moo ko defal groupe Equivox waaye lépp rek su mënee am grâce à Jamaïque Jamaïque encore une fois su ma amee accès Gambie rek moom la parce que xamoo xamoon nañ ma mais la ma fa am léegi ci ay relation lépp Jamaïque la kon Jamaïque yàlla na nga yokk di nuyu ñoom Mor bu parcelle ñoom Fay ñoom Sitta. Mhm. waaye suñu grand Lamine Samba tamit. Mhm. mention spéciale ci jàppale bi ke waaye les Lamine Seck tam mhm. ah fay ko dina jafe de. parce que li ma wax rek Lamine Lutte TV. la nit àncee ngi noonu. Mhm. muy jàppale yow rek nga xam ne duggoo na ak yow. Mhm. maanaam du jàppantu. wax sa da yàqul dara ci bu baax a sama rakk jooju. Mhm. sama xarit boobu. am na solo sama seex la. waaw looloo xewoon ca Equivox TV waaye bii ba production tamit kenn du moom. loolu ñooro lay amee. du mën a ñàkk ku yóbbu waajal ko ah loolu daa mënta ñàkk. dëkk ñoom xule. dañuy dem ñooro dëkk ñoom waaw dëkk DG. du mën a ñàkk dañuy dem ñooro incha allah rabbi <laughs> ak bii ba production loolu après tabaski lay doon bu soobee suñu borom làmb ju neex ah mhm. drapeau Moustapha Bitey mhm. di kilifa goo xam ne xale la mhm. waaye yàlla jox na ko kilifteef macha allah di ko ñaanal yàlla société boobu mu jiitu muy Petronas yàlla na raw société ci wàllum pétrole ndax nag man comme ni ma la ni ma lay wax rek man moom ku ma jàpp ma jàpp la te muy dëgg waaw waaye boo ma cofee itam ma sori waaw boo ma nëbbutoo ma réer <laughs> man nii lay doxe am na waaw Moustapha bi tey daal Petronas. Mhm. yàlla na raw société yëngu ci pétrole yëpp. loolu laa koy ñaanal. comme ni sa rawee diwlin yëpp. yàlla na ni Petronas rawee. am na solo lii laay ñaanal Moustapha bi mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne. ñu mhm. muy waa Saloum waaye Fallou Ndiaye bul fàtte ne la 23 defe naa mooy mercredi bii di ñëw. mercredi suba bu dellu see. jàkkaarloo Mbër Ada Fass Ibamar jóge sa loolu dina garaaw. waaye bul fàtte itam di Jaxate ca soo fa xam ne mooy ca Kaffrine drapeau Ablaye Sow la fay def Siteu bu Saalum la boole. Mhm. ak Brise de Mer si di jaxate borom si Thiès suñu papa jooju. waaye tey Garga 2 day def open press pour le 19. incha allah suba Franc day def. Mhm. ginnaaw suba Tyson de day def. loolu day jax alxemes ja tamit ba tey ginnaaw suba jë. maama mhm. Lamine Tarkinda bi day def. day def kon daal Vox Arena ñoom tamit kenn du ñoom de. jaajëf waaye cey Zador. amul morom. kenn du Zador xaaral sax mu yóbbaale da ma yóbbaale waaw parce que bi ma doon kër gi est-ce que ah, jéem ba tey loo ma bëgg merci jërë ngeen jëf bàyyi moi ah, ça m'appartient joxal mu bi euh, ñaareel xaritu jëkkëram waaw jox ko yii yëpp après bu mag la noonu laa koy defee sax waaw noonu laa koy defee te na ngay jël bu mag bi du man a ñàkk jërë jël deux sœurs bi la demee Zador ça m'appartient xulle